tëj na ko ba sëriñ bi nee na samay yére commencé di di daggatoo ba amatuma lu ma sol lu dul lii ma sol nii nee na ma ñëw ci sëñ Mor Anta tàgg ko ne ko damaa bëgg nga jox ma ndigal ma dem bind ab kaamil sama mbind daa rafetoon lool nee na Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana moo ko nettali mu ngi ci téere bi may tuddee an nubzatul mubarak nee na sama mbind ko foo ko jaayee day jar nee na ma ñëw tàggu sëñ Mor Anta ngir dem ci àll ba bindub kaamil jaay ko jënd ci ay yére nee na sëñ Mor ne ko toogal fa ma la toogloo ne sëñ Tuubaa nee na nekk naa ci néeg bi di sikki sàkk ndax sëñ Mor Anta Sali mii daf maa bëgg wala daf ma bañ ndax àqi aadama li ci gën a néew mooy ay yére yum sol sàkku ndigal bindub kaamil jaay ko jënd ci yére yu ma sol nga ne ma dugul génn nee na may sikki sàkk ndax sëñ Mor Anta Sali daf maa bëggam daf maa bañ ahubbun haza am bordun nee na waaye mu tontu ma ci lisaanul xaali Cerno Birahim Saw mi nga xam ne ñenn ñi wax kan la sant moom la tuddee eh, borom daarul moxti nga xam ne ma a dëkk Maatam ca gannaaw dex ga ñuy wax Makaama moo ñëw seet si seet si sëñ Mor Anta Sali mu koy gunge ak gan ñi bañ tolloog néeg bi sëñ Tuubaa nekk mu ne gan ñi jiitu leen ma ñu jiitu ko mu daal ne ko néeg bi day ki ma gën a bëgg ci sama njaboot fi la nekk muy sëñ Tuubaa ne ko damaa bëggut muy jaxasoog ñi moo tax dafa dama am yaakaar ci moom bëgg naa nag nga ñaanal ko mu ne ko anam mu ne ko buntu baa ngi tëje xëy na génn na sëñ Tuubaa nee na maa ngi ci biir di leen dégg keroog laa xam ne sëñ Mor Anta Sali ndeke tëj gi bëgg la waaye du bañ nee na sëñ Mor Anta Sali daana ko tëj tëj goo xam ne doyoon na waar lool lool lool ci moom nee na moom nag bi muy jàng dafa amoon pëstef lool ci njàng mi nee na sëñ Mor Anta Sali daan na ko yéem lool ci mën a mokkal kon loolu li li mu lay xamal mooy nekkati sëriñ bi ni mu mel ak fu mu dem yëfam mbiram jàll nekkul ne dafa tëb nii rek li gars naan da cee dal sëriñ bi mbiram nekkul ne da dal dafa am programme bu leer bu mu tegoon waajuram it tegaloon ko programme bu leer mu cay dox li mooy sëñ Tuubaa dafa wax Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana mu bind ko ci An-Nubzatul Mubaaraka nee na sëñ Tuubaa na bokk na ci li ma yàlla teel a dimbalee ma bëgg ay naar ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa daa toog ak salmaanul farisi ñu waxtaan ba yàgg mu teg ko loxo ne ko salmaan ba àdduna du dox ba nga bañ ma salmaanul farisi jooy ne ko yow yonent bi sallallahu alayka wa sallam yow yow yow laa gën a bëgg ba bàyyi sama famille bi ma bokk mi perse yi ñëw ànd yow te nga def arab naka la àdduna di doxee ba ma bañ la mu ne ko sama jëmm taxut may wax nit boo bañee mbokkam bañ nga ko askan wi ma bokk muy arab yi dañoo dañoo am sàggante gu leen yàlla sàkkee damay bañ ñu dem ba ca kanam nga gis ci ñoom jëf joo xam ne dana tax nga bañ arab yi te boo bañee arab yi bañ nga ma ndax ci ñoom laa bokk gisoo keroog xasaan ibnu saabitin ba ñu xasa yenent bi mu daal di ne ko ku ku may xas xasal yéefari te du ma ci taq du ma ci laale xasaan ne ko dinaa la ci seppi ni ñuy seppee karaw gu daanu ci ab mooñ moo tax eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallama nekk gi nga xam ne daf koo nekk di di di di njariñal jaam ñi moo tax kenn warta jël dara di ko jëmale ci askanam suñ tubaa ne yàlla daf ma teeloon a bëggloo ay naar ngir xadisu eh, boobu moo waxoon eh, jëm jooju ma tudd sànq muy saxaabi boobu sëñ Tuubaa nee na naar yi saa bu ñu wàccaan ndax naar yi daana ñu ñëw côté Njaañ ak côté Kajoor geeg Bawol gi ku ñu wax euh, euh, nu mu tudd sax naar boobu nga xam ne Mouhamadou Jadaal yi sëñ bi jàng na ci moom xam-xami balaaxa yu demee noonu dañoo amoon ay jaam yu ñuul ndax jaam valable loon na Mauritanie ba tey sax am na côté bu mu fa leen daan luyee léegi nag bu ñu la fi bàyyilee jaam bi at mi at mi ba mi del si day ñëw nga jox ko njëgul li fi jaam liggéey bu ñëwaan nag sëñ Tuubaa nee na bu ma déggaan naar yi damay jël sama yi li ma am ñëw neexal leen ñu may jox xam-xam wàllu littérature xam nga moom day am lu baax am lu bon nee na may jël lépp bu ma demee segg li baax ma jël li bon ma tegee nee nee na am na bis ñu may wax ci xam-xamub tasawuf di ma wax ci xam-xamub tasawuf wax ma jëmm joo xam ne la nekk ne ma sa positif bii nga am boo demee ci moom izhab ila cheikh fulaanin sa yu ko bu ñu demee ci sëriñ sàngam positif bi raar na Mauritanie dan sëriñ boobu dana la seexal sëñ Tuubaa nee na wax ji convaincre ko loolu Cheikh Ahmadou Lam Diop Dagana ko net li ci Irwaawu Nadim ci ci an nubzatul mubaaraka bokk nee na ma ma ñëw ci sëñ Mor ko tàggu ñëw ne ko ñoom day dañu maa wax ne ma am na sëriñ bu nekk Mauritanie boo xam ne li ma bëgg nii mu ne ci sam xol muy tarbiyaw góor yàlla ba am am lef ci tasawuf da koo mën lool bu ma demee dana ma seexal sëñ morante sele genn kàddu la ko tontu laa tafaal ijlis waqbil ala taallumika yaatika alxayru fi mahallika bul ko def toogal nga jàng sam njàng lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg ci yiw ba koy wuti Mauritanie bis dana ñëw mu jëg jëtikook ay tànkam jugee Mauritanie fekk si Sénégal loolu mooy tey yiw wu ñu daan bëgg ba koy wuti Murtani tey ak feneen ci réew mi foog naa déplacé wu na tey ñëw ci loxol sëñ Tuubaa kon sëñ Mor Anta Sali dafa doon waajal sëriñ bi nekkutoon nekkut ne mbir mi dafa am sudu fatan li ñuy wax sudu fatan accidentellement rek nii sëriñ bi daal di xëy rek dal ci yoonu murit sosu déedéet xam nga dañuy faxaroo di baaxoo di wax ci réew mi bu ñuy wax naan ab bawal bawal la kenn mënu ko teg diil xel mi daa ñor wala ñu naan ab kajoor kajoor la kajoor kajoor rek bawal bawal yi gën a muus ci la sëñ Tuubaa sosé yëf yi jàll ba Dakar fi ngaa koy dëkk kon bu yëf yi du bu doon di du bëtt kajoor kajoor yeeg bawal bawal yi jàpp na ñoo gën a nandite ba agsi Dakar gi nga xam ne jàpp naa ne eh, kajoor kajoor yeeg bawal bawal yi ñoom ñoo fi ñoo ñoo fi gën a mën a lijjantiku ki nga xam ne daa juddoo Dakar yaroo fi kon fi nga xam ne fi la sëriñ bi ganee jamono moo ko waajal waajtaay loolu nga xam ne moo ko may mu àgg foofu mu àgg environnement bi mu nekkoon Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana dafa wax ci an-Nubzatul Mubaraka nee na i'lam wafaqaka Allahu anna shaykhana intasara siituhu wa tabaqa al afaqa fi awali nusuihi fi xayaati walidihi wa huwa duna al buluuqi wa yunaaxizuhu wa tasaamaati nnaasu ala anna li cheikh mouhamad ibnu habibillahi ibnun faaqa fi lwaraci wa taqwa muy taxi bu ma neex dama koy faral di wax lu bari bari ci samay waxtaan Cheikh Lam Diop Dagana dafa wax ne na nga xam ne Serigne tubaa ci dunduk waajuram la ko réew mépp maase woon xam ne ni dëkk yépp di waxtaanee ne suñ Mor Anta Sali de am na doom joo xam ne ku dëdd dëddu àdduna la ku jaamukatub yàlla la ku bari xam la ndax boobu sëñ sëñ Touba jommaloon nañ ñi mu daan jàngandool sax ci xam doonoon ab jàngkat boo xam ne lu mu jàng da koy mokkal nee na li ko mayoon mu gën a mën a mokkal nag bokkoon na ci ñi muy jàngandool dañuy gaaw a fàtte te sëñ Mor Anta Sali làmmiñam dafa bar te duñu ko dégg day ñuy ñëwaat ci moom nag naan ko sëñ Mor lu mu waxoon fii mu leen koy bamtulaat xam nga ñi jaar ci école yi sa xam nañu ne ki nga xam ne moo gën a neex xel lu lu étudiants yi wala élèves yi tënk la ñëw mu leen koy leeralaat leeral gi ñu koy gën a leeral da nga koy gën a dégg yow wala tatruki takraara fi ma xafiztahu wa man taraka takraara la budda an yansa sëñ Tuubaa nee na noonu la meloon ak sëñ Mor Anta Sali loolu ngir wa leeralal la rek ne sëriñ bi mbir mi xëyul rek mel nii nga xam ne da cee mel na lu ci dal nii dafa nekk loo xam ne programmation la ay waajuram dañ ko tegoon ci yoon wu leer moom it mu amoon programme bu leer daf ko bind wax ko walam azal munzu aqaltu taliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna ulama wa awliya bi niyati wa amali wa xawliya kay laa yadia umuri itaaba bi xusni zannin qaada lixtisaaba xatta saraftu ama aysachin ila eh, xidmati xayril alamina zil ila sëñ Tuubaa dafa wax ne ba ma ameem xel wala am azal musuma dëñ mun soo xaltu ba ma ameem xel taaliba maarifatan billahi may sàkku xam yàlla jàlla taaliba ne na loola jaral ma nag ma jug fa jultu bayna ulama wa awliya fu ma dégg borom xam-xam dem siyaare ji la fu ma dégg wàllu yu dem siyaare ji la xattaan sarafta ama ay sisin nee ba bi fi sëñ Mor Sali jógee nee ma daal di takk sama ndigg nag daal di jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax kàddoom gu siiw googu daal di wax ne ubayiul yowma rasul al mustafa bi wa asalullah al wafa waahidullah ala aqzil kitab wa xidmatin lil mustafa baabi sawaab ahaq jumlatil wara bi xidmati bin nasri rasuli rahmati daal di waxaan ne baayahu al qalbu ma al aqlaami ka misli baayatil malal alaami ngir leeral rek ne sëriñ bi kon lépp programme la woon boo xam ne nee na bi mu am bi mu nekkee tout tànk ci la ko tegoon sëriñ bi teel a siiw ci ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon environnement bi mu doon dund muy bawal ak kajoor ak lu noonu ñi fa nekk ñëpp nag teel koo xam ci xarit yi waajuram dañ ciy cité rek bàyyi xaadim ba jaxate kala Cheikh Tidiane Gaye e, doonoon e, mu fattish maanaam e, borom xam bu mag bu dëkkoon Louga maa ngi nuyu de passage doomam ji nga xam ne mooy Ibnu Abbas Gaye Cheikh Tidiane Gaye dafa bind ci téere ci jëmm jooju nga xam ne mooy bàyyi xaadim ba jaxate kala muy alxaadil arib ci biir téere bi wax na ci bàyyi xaari ma jaxate ka la xam-xamam bu bari ak fi mu tolloon dafa wax ne law kaanal adabu kursiyan faqad tarabba alayhi alqaadi nee na eh, littérature arab ci réew mi bu nekkoon ab siis la bàyyi xaat yi moo ca farankulaayu te kenn du ne ko jugal bàyyi xaat yi moomu daf daan corriger sëñ tubaa wàllum woyam ba mujj daa wax sañ tubaa bu indee ay woy daan ne ko aati bihi ahfazhu boo bindatee indil ma ma mokkal man waaye amatuma lu ma lay corriger naan la defal léeg defal la yow loo defati jub jub na léegi dem ba naan ko kunta ibnan fa sirtaban wa kunta tilmisan fasirta cheikhan bu njëkk ba doom nga woon léegi baay nga bu njëkk ba élève nga woon léegi maître nga loolu Baay Xaadim ko seddeel sëñ Tuubaa te xasida xoqal bukaaw gi murit bu ko jàng war na cee sant Baay Xaadim jaxate ka la ndax Baay Xaadim bind xoqal bukaaw ala saadati amwaati tabkil aradi alayhim kasa samawati jox ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daal di daal di daal di koy feelu xoqal bukaaw ala saadati amwaati tabkil aradi alayhim kasa samawati Baye Xaadima Jaxate Kala moomu mbiri xam-xam dox na diggam ak sëñ Tuubaa ngir xamal la rek ne sëriñ bi environnement bi mu dëkk bawal gi mu dëkk xam nga tubaab bi ay faral di wax naan nil ne prophète chez soi règlement boobu sëñ Tuubaa ko teggi sànni ndax sëñ Mor moo jébbalu ci moom sëñ Masamba di rakkam ci moom borom daarul mooti ibrahima lazi lam yu faariq moom nga xam ne ñoom la bokkal ci wàllu ndey ñu leen di tuddee ay ay jarbaat wala ñu leen di tuddee ay nijaay ñëpp daal di jébbalu ci moom jox ko seen bopp kon li ñuy wax nil ne prophète chez soi règlement boobu moom wala règle boobu Serigne Touba da koo dajji sànni ci àll ba nga xam ne ñu ko gën a jege moom ñoo ko gën a gëm ñu mel nañ sëñ Mbàkke Bousso ñu demee noonu kon sëriñ bi ngir xam le rek ne dafa tegoon maanaam dafa amoon programme am bu leer boo xam ne ci la jaar baag si fii teel a bind ay téere teel jàngale xam muy tasaw di sixaar yi jasbatu sixaar ak yu demee noonu nga xam ne ci lay leeral mboor mi mu jaar ci lay leerali taalibe yi mboor yi nga xam ne ci lañ war a jaar ci wàllu fiq ci wàllu tasawuf ak ci wàllu wàllu wàllu wàllu taw tawhid sañ Muhammad waaye diggam ak Baye Xaadi googu ma doon leeral sànq ngir dama bëgg rek ñu xam ne diggante sëriñ bi nekkul ne euh, maanaam waa Europe ñoo ko xëy nangul wala ñu mujjee judd ñoo ko nangul waaye borom xam-xam yi mu doon dundandoontel ci jamono ji nga xam ne ñooñu ñoo fekkee ak gën a ñoo ñoo ko nangul Baye ma jaxate kala bis dafa bind ay wëy yoo xam ne daf ci misaal ni ko Serigne Touba jege woon seen relation neexoon lool bu bëggee gi sëriñ bi gis ko yeesaay ñuy yónni Serigne bi fi moom mu daal di gannaaw gi mu ñàkk jot moom sëriñ bi Baye Xaadim bëggee jot ci sëriñ bi mel na loolu dëkkoo ta mu misaal imaginer benn seen mel na daal daa am ndaw ba muy doon gone xale yu jigéen yi dañ ko daa topp ku mu ci woo nga ne nga ne bisimilah daal di ñëw ku mu ci soxla daal mooy bañ waaye bi mu demee ba béjjaay yu commencé génn gone gu jigéen gum ne kaay nga daw daal di koy imaginer def ko benn seen daal di koy def benn benn benn poème bu neex poème mooy daf koo daf koo ràbbale arab ak wax ne li ma nin xamat baada shaybin abratin wabuma araqaha kilmata soxda bama wa buma iskallamatni bi taynil kilmatayni bila xizlin wa mazhid badali annaha banama wa anna xabla wisaali saara munsariman aw waahinan xaliqan tajdiduhu tanama maa lii araaniya in laa mastoxaaniyatan asra shababi taqabal aw taqul yóbbu ma wal yowma in lamasat xuudan yadi laiban taafafat summa naadat yaa abi sori ma wa kullu naahidati sadyayni tulxisu nii bi ayni suqtin fa tuala sawtaha faw ma wa in la xawtu talaxat aw danawtu naat wa in asal fa jawaabun indaha xamuma kam kaaibin waatadat ni zawratan ashiqan zamana surqa wala ma jituha naxuma ba xasi daga jeex mu ci misaal diggantee ak sëñ tubaa sëñ tubaa wéyaat tamit daal di koy tontu ci même baxar bi ak ci même scène bi ak ci même ni mu ko wéyee ràbbale arab ak wolof daal di koy tontu ne ko yaa ibratan sabaha xawli ba ma wabuma xëllan kafafta bi xawli ina ni meruma taklimunaa bihima lam yaku yamnauna baiduhu min wisaalin laa taqul tene ma yaa xillu yaa cheyqu tib nafsan wa zunna bi naa xayran kasiran wala fii naa taxul bëgguma li anna nii kulla xiinin abtaqi abadan ityaana manzilikum lakinna nii wéruma law kaana indi jawaabul xayri arkabuhu zurnaaka yaa xillu faalam anna nii méruma daal di koy tontu baay xadima jaxate kala ngir leeral rek digganteem ak mag ñi nga xam ne ñoom la jamononteeloon ma nett li ci benn xisa te yam foofu baay xaadi Boubacar Fall sëñ Tuubaa na sëñ Mor Anta Sali daf koo mës a yónni ne ko boo dëppee nag ma fekk sa kër baay xaadi Boubacar Fall ca Pire nee na bi mu dëppee mu jaar fa fekk ci néeg bi dugg ci néeg bi fekk sañ Mor Anta Sali ngi ci kaw lal bi Lat Joor a ngi ci kaw lal bi Baay Xaadima Jaxate Kala ngi ci kaw bi benn naar bu dëkk Baxdaad bu ñuy wax Ibrahima al Baxdaadi moo ngi ci kaw lal bi Ibrahima al Baxdaadi daa dewoonoon borom xam-xam boo xam ne littéraire bu bu bu bari woon xam-xam la di wax ay wëy yu neex Baay Xaadima Jaxate Kala xam naa la wax naa la fi xam-xamam toll waaye Baay Xaadi li muy bari bari xam-xam keroog Ibrahima al Baxdaadi li muy wax keroog la ko Baay Xaadi njëkk a dégg daa mujj mënu koo muñ mu mu dagg bant ci xat bi sànni sëñ tubaa ne ko bindal ma lu neex li ibrahima al baghdadi di wax bala mu ma rëcc sëñ tubaa nee na fa kittu an uxma alayya xawfan wa xayaa nee na tuuti ma xam fi ma toog ngir ragal yàlla ak am kersa ngir bant jàmbur bi mu dagg ci ci kërug jàmbur gi te bant bi moomu ko ma xool genn gone ne ko demal ci mbooyug yàlla gi nga xool garab bu kenn moomut nga daggal ma ca bant nee na mu dagg bant ñëw may bind bàyyi xool ma ma xool ko mu ree ma muuñ mu xam li ma def nee na mu ne ma waa bindal rek nee na ma bindal ko nee na bi julli jotee ñu ne sëñ Mor Sali jiital sëñ Mor Sali woo ko nee na ma ñëw mu ne ma jiital nee ma xam ne mbir am na ndax sëñ Mor Sali du ma mooy ndigalam waaye kilifa yu toll nii naka la laa leen di jiite ci julli nee bi mu bi mu sëlmalee keroog la sëñ Pir daal ne gone gu ndaw gi ay baayam nekk fi ñu di ko jiital mbir lañ xam ci moom daal di wéet ak sëñ Tuubaa jox ko boppam loolu pour leeral rek la entre parenthèse ne sëriñ bi nekkul ne dafa xëy rek génn ci àdduna mbir mi yéeme waaye environnement bi mu doon dund ci ay waajuram ak ñi maaseeg waajuram foofa la sëriñ bi tàmbalee mbiram ci jamono ja nga xam ne duunal buluuxi nga xam ne amagut at yi ñuy wax majeur jërëjëf sëriñ Mbacke Saliou Aïcha ah? ne ne <laughs> waaw waaw dafa am ma ko gis muy muy kii dafa mel dafa dafa dafa dafa am lu ma bëggoon ci moom sax mhm. ndax moom damay dégg olof di wax ni kuule xame naak jaalo Saliou dafa am ay stratégie yu muy doxalee ak euh, euh, sang bi foo xam ni moom rek moo ko fa mën a egg digganteem ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul waaye Cheikh Mbacke yi tamit kazalika dama bëggoon waxtaan wi ibbeeku euh, Fatou Abdou noonu ñu ñëpp ñu daal di jàngaat kan mooy ku tedd Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul saa yu ay ca d'accord léegi Mohamed euh, pour ñu gën a euh, universalité wu Cheikhul Khadim ngir ñu gën ci plongé sëñ am foog ñu ibbi question yi foog ñu dugg sëñ Amidoune bëggoon naa nag nga nga wax ñu Serigne Touba lan la indil waa àdduna waaw ah. moom dama xam fi ma koy jaar. jërëjëf question bu am solo. waaw. nee naa sa Serigne Touba université universalité c'est lié à la mission prophétique. suñu borom daf ne wa maa ar daf ne wa maa arsalnaa ila wa maa arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dañu laa yónnee ngir nga doon yërmande ci bindee fi yàlla yi waxaat ko ni ko innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq da ngaa ñëw ñu jox la melukaan yi gën a rafet ngir nga mottali jikko yu rafet yi waxaat ko ni ko wa innaka la ala xuluqin azim tu es certes d'une moralité imminente yaa gën a tëdd nga ay jikko sëriñ Tuubaa ne raama rasulillahi min ilahi kaw nii xadimahu yàlla moo moo yàlla moo wax yonente bi yonente bi moo sàkku ci yàlla ma doon ab liggéey katam kon sëñ Bamba jugul rek ni dan rasulullah sallam digal la ci am moo tax mu wax tamit ci biir mbindam wax na ko léegi Eh, daat ne nasafatuhu kulli min allaghwi taharat wa sunnatuhu insha rabbi ubaynu waaye sëriñ bi def ne lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatuhu al-gharra wa inni ahmadu sëñ Touba c'est un vivificateur du message li la Saliou laaj ndax dégg nga ko jërëjëf dégg Saliou laajaat ko ko daal euh, tax ma ko laaj euh, daf ko wax léegi euh, si ce n'était pas les fils d'Adam je ne passerai pas une seule nuit sur terre mm-hmm. ñun ñoo taxoon ñu exilé ko n'abusez pas de condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi Je suis le serviteur éternel de Dieu. Et chaque génération qui la certitude que je suis venu pour elle. sëñ am ci xam-xam bu rafet bi waaye sa waajur nii nga mel rek la war a mën a mel damay santaat yàlla nag ndax léegi la ma doomi Cheikh Mouhamadul Fadal di woo ci biir jataay bi muy Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal di ma wax ne waa leen góor sëñ Tuubaa rek fi ne te moom rek lañ am. dëgg la. maa ngi koy ñaanal ndax daf ñuy wéttali sëñ Mourtala di ñu woo di waxtaan ak ñun waaye di ñu dolli sunu gëm-gëm sëñ Saliou man murit laa te man sëñ Tuubaa rek laa yaakaar. te man jàpp naa ne ma baax le mooy li ma yaakaari sëñ Tuubaa sëñ Mohamed sëñ Tuubaa defuñu ay yéefar. defuñu ay mushrikiin defuñu ay nifaaq ndax yooyu yëpp benn bu mu ci doon rek boo xoolee ci alquran yàlla catégorisé na ko ku bokk ci ñii lii la ku bokk ci ñii lii la sëñ tubaa defuñuy jaam sëñ tubaa waxuma kaay leen toppnu waxul loolu de mhm. kaay leen ma dimbali leen yowmal xiyaam damay rammu ahlul barri moo tax damay rammu ji ahlul baxri sañ Touba defunu ne damay tënki seenum xel ci li ma bëgg ngeen di jaar parce que dafa bari ay question yenn saa yi nga dégg ñu ne murid yi nee nañ sëñ bi sax ku aj ci jumaam ji sax am nga aj waaw nañ firi li mu wax limal bi don fin la wax ku lompoñ ndax sëñ Touba dafay jegeel nit ki yàlla ci li nit ki war a mën a am mu jafe ci suñu borom loolu la sëñ Touba di jegeel mais ñun à l'intérieur ba à l'extérieur dañoo jabolise ak àddina ci am na ñoo xam boo leen ne jàpp loxo ñu ne murid ay shirk lañ murid yi bislaam lañ ci biir islaam déedéet diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al wa bihi nu jaddidu sëñ tubaa abdullahi wa xaadimu rasulih dëgg la nanguwul dëkkub jàmbur benn wax naa la ko léegi bi mu wàccee wóotewul ne ab yonent laa rayut maami kenn daf ne bambaane may nama dalul islaamu sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu yii may wax yépp nag sëñ Tuubaa ne ne yàlla dama cee kaccate barra anil ilahu min shirkin wa min kulli nifaqin wa saadati damin sëñ Tuubaa buy utiliser baatum noon sax ab jullit taxul ki fi bàyyi lislaam a tax suy wax xulubu dawil udwaani chixat li xayrina waxul kim mbokkal lislaam déedéet xilaa u dawil ishraaki lii xaada kullama rajawtu wa inni du sukurin alal farxi sëñ tubaa buy utiliser sëñ tubaa moonu privilégié sëñ tubaa moonu ubbi ci bu ngeen gisee borom xam-xam ak ku sell ziyaare leen ko xanaa loolu mooy démocratie mhm. wa dur xiyaar al ulama wa saalihin waqdimhumu lillahi jalla kulla in sëñ tubaa amul problème ak Sénégal gëm koo ñu weddi ko ndax luñ ko waxal moo ko waxal boppam sëñ tubaa nee na malayka yi sax dañ may béggee man sëñ Tuubaa waa ku malaaka di béré bég malaaka lekkul naanul sëyul amul doom sëñ Tuubaa ne dañ may bëgge te ba balaa sëñ Tuubaa wax loolu sëñ Saal da ngay natt diggante sañ tubaak yàlla ba noppi mm-hmm, tawxid ji sëñ Tuubaa am ci diggam ak borom mm-hmm. ki wax loolu ni mu ragale yàlla mm-hmm. ak fam teg yàlla ak fam wéetale yàlla ak ni mu doon jaamu yàlla ak ni mu doon dunde yàlla nga xam ne da ngay gis kuuxuma sax sëñ tubaa waaye kenn ci njabootu sëñ tubaa nga gis mu toog ay fel di ko sam wala ay weñ di ko biiw mu toog fi mu toog rus na leen a dàq ndax dañoo jàpp ne bindaa fanu yàlla lañ sëñ tubaa moo ne yuhibbu nii malaikul baaxil karim li wàcc hihi maa falaahin laa yarim hmm, sëñ tubaa nee na li ma sàmmoon ba mu nee jëf na ba mu nee jëppët daf ne damay waqante hmm. waaye bi ma waqanteeg yàlla mu joxoñ ma yonent bi li ma xemme moon lépp la ma jox loo xitaabi daaya bi maa yuhibbu maadiya waaye waxaadali ak radia sëñ Tuba teggeewu fi yonent bi daf na dan na ci wetu yonent bi alayhi salaam lu mu am ci moom la ko amee yaa sayidi yaa rasulallahi yaa xaradi inni la dal baabi sëñ Tuba ne dan na yonent bi sëñ Tuba boo koy jàng da ko war a ñeewant mm. gis nga li sëñ Saaliw sox wax soo nekkoon bitim réew ñu wax la sëñ tubaa nga ñëw ñu ne la bawal gi psychologiquement xel mënul nangu réussiru sëñ tubaa mhm. xel mënu ko nangu parce que bawal gi mu ganee àddina feeñe fa fekke fa ay waajuram bokkoon na ci ñi nga xam ne bokkuñu woon ci ñiw ñi ñu bàyyi xel ci réew mi mhm. booba ndar gore ak ak ak ñooy dëkk yi nga xam ne nii ñoom la ñu bàyyi xel AOF waaye sëñ tubaa mhm. dafa am fu mu teg tànkam ku malayka yi di béggee nag hmm? di la bàyyi xel kooku doomu aadama waxaale su ko wax nga dëgg de boo demee gànnaar bi muy dem gànnaar laataa mu fay dugg ñoom ñoo njëkk a joxe seen bopp jox sëñ tubaa te ba ñuy jox seen bopp sëñ tubaa dañ ko ne ñun ay enlewi yun lañ ak i xasani yun ñun duñ topp sax nit ku weex ni ñun bay topp nit ku ñuul dañoo tagg seen bopp ba noppi door a seen bopp sëñ tubaa kon li naar yi wax sëriñ tubaa wala fi sax waxuñu ko déedéet dañ ko ne ba banu xasanin hmm. dalat fasahatuna hmm. inna ila al arabi al arba in antasibu mm. in lam takun bayinatun annana arabu fa fi lisaani bayaanan annana arabu mm. xoolal xasida gi nga xam ne mooy wakkaana xaqan alayna nasrul muminin sëñ Tuubaa gànnaar la ko taalifee mm-hmm. bi koy taalif intervention moo tax mm-hmm. waaye xoolal rappel bi mu def yàlla mm-hmm. daf na ko yaaman xaala yaaman xaala wakkaana xaqan alayna nasrul muminin te tarjumaan nga mu ne ko wa furxatal jamii il muminin wal day fekk lu jullit yi am ay jafe-jafe mu privilégié lañ ci li mu indi sëñ Saaliw mooy lislaam ju sell ju set ju raxul dara bu fekkee ne ñëw nga ñu jàngal la sëñ tubaa ci légitimité loo xam dañ lay wax ne moom la rek soxla wu sax nga gëm ko dañ naan la moom la mhm. mës naa ko fee wax ci ay jamono ma ne leen jotoon na sax aéroport yi ak port yi ñu am ñu di ci def na taalam dëgg jërul ñu naan moo def karaama gi déedéet jërul loolu nañ ne rek nit ku ñuul la mhm. ku nekkoon ci réew mii xeexal lislaam tax ñu génne ko réew mi mhm. mu dem nekkal fa lislaam delsiwaat ci réew mii te dérangé kenn sëñ Mouhamed personnalité wu Cheikhul Khadim mhm. pour wan la ne nit ñi taxuñu ko woon a jóg bi ñuy wàcc 1902 Ndakaaru bi ko nit ñi diraay da doon maytu sëñ Touba booba da doon moytu nit Mm-hmm. waa lan moo gën a tiris mm-hmm. sëñ tubaa ñett yi mbëggun ñu xañ ko ko mooy dem ci yonent bi ak dëkk Touba mm-hmm. amu ci benn nga def njaareem 1912 ba 1927 munoo dem sax ngaabu te nga moom dëkk bii yàlla te ko ci sa loxo nga moom ko xaqan mu leer leen suñu borom la ko jox ñu xaañ la ko zaahirement mu toog di ko muñ sëñ tubaa dafa def loo xam ne ci réew mi saadil bur ne murit la wala nga ne moom ab tariixa yor waaye mën nga am benn compréhension boo ko nangule ci njàmbaar gi sëñ Tuubaa am ndax juróom-ñaari at yi nga xam ne def na ko ci ci àddina ji ci ci ci exil bi lan moo tax mu def ko bi muy dellu si lu mu wax daf na yàlla soo ma ubbee nang ma delloo ci réew mi te ne njariñul jullit yi lef tax warut danii ila daari salaam waaye wa bin fain naasa jamian ya salaam Seexul Xaddim loolu réussir na ko du sori. jëlal Cheikh Mouhamadul Mountakha. dañoo defar autoroute Ila Touba. ñu inauguré ko. Cheikh Mouhamadul Mountakha jógee Touba ak i Matar war a inauguré si jumaay Masaalikul Jinaan. autoroute bi. événement bi ci sëñ Mountakha njëkk a inauguré mooy jumaay Masaalikul Jinaan. waa demal ci àddina ñu ne la jumaa ji dàq ci Sénégal ca capital ba lañ ko tabax. nun mënuñ ñoo génn ci lislaam ji. mënuñ ñoo génn ci njàngaleem sëriñ bi mënuñ ñoo jaxaseeg àddina. soo demee mas masalam diine moo soxla boo taxawee ci buntu communauté rurale ba wala buntu mairie ba gone gu ndaw goo ko laaj mu tontu la. kuy bind kaamil ci bis ay lu yu mën ta wax sax di ca bokk kooku bu buñ la ne dangaa ginnaaw ginnaawal lislaam wala dangaa jël nit def ko yàlla juum nañ. koo xam ne ni bu weeru koor jotee jumaa yi nekk Touba yëppay nodd masaalikul jinaan ngi nii bërki démb bi ñu tàmbalee koor gi day fees dell ñu fi nekk fanweeri at la ñam jëm ñaar fukki at jëm fukki at ak juróom-ñett kooku buñ la nee réussirul lim bëggun ci lislaam dañ lay nax te bi mu demee ba ci biir nag def na yàlla ci boppam moom a kàccati ci mbindeef yi sëñ Tuubaa lu kenn xamul la mm. barra anil xaaliqu min siwaahu waaye waxaadanii man laa yuraa sarwaahu sëñ tubaa sax nee na ki ma bëgg dëgg dëgg dëgg mu gësuma mooy ki ma xamul mm. kooku laa bëgg mu gësuma ndax boo ko gëstoo di nga ko toppi mm-hmm. ragal yàlla sëriñ bi ak fi mu tegoon suñu borom ak fi mu tegoon yonent bi alayhi salaatu salaam taxoon na kuy wutali sëriñ bi di ko waajal mhm. sëñ tubaa mhm. koo ma sa dégg mu koy fawe wala mu koy waxtaane te xamu ko daa jàkkaarloowul ak moom mhm. waaye boo jàkkaarloo ak moom xam ne jàkkaarloo nga góor piir eh. soo jàkkaarloo ak moom xam ne jàkkaarloo nga ak piir soo jàkkaarloo ak moom jàkkaarloo nga ak koo xam ne amul intere ci li muy liggéey dafa liggéey dëkk bi di décentraliser lislaam woye falal nit ñi li nga xam ne ni mooy ibaada bi lan la ko lan lañ ko woye fale mooy bind ay téere xam-xam ne jaar leen ci lii sëñ Tuubaa def ne billaahi aminu wa aslimu maa waaye wal toxsinu li wa ci baaxin xamaa sëñ Tuubaa dem na bay wax sax ni nit munta jariñ dara ci biir bàmmeelam lu dul ak njub billaahi laysa yanfahu sax su xadaa inda xululi ramsihi xayral huda sëñ Tuubaa lii la ñu jàngal soo demee tasawdu si xaar tasawdu subaan nahju mu nawiru mu layin masaalikul jinaan lenn loo ci jël sëñ tubaa lim ciy jànge mooy tawhid di jàngal xoqaa daf lay wax arkaan maanaam fondement yi tax nit ki mën a nekk ab jullit piir sëñ tubaa da la koy limal benn par benn di ko teg te nag sëñ tubaa ku nangul lu yàlla defal ñépp la mhm. ndax kum doon topp na la di sakku yàlla ci yow mhm. di sakku aw yiw ci yow ba nga gërëm ko saal ko mu seete leneen kon kon ñëwul rek génne loolu de dafa ñëw jaar ci loolu ba am lii mu am tey kenn ku ci nekk mu nangul la beneen bi ci topp mooy nit réere na fu ne mhm. am njàqare am tiitaange ñëw jàkkaarloog Seexul Xaddim mhm. nit jóge ne fu ne waajal ay bayit waa ma Madinatul Munawwara bi ñu ñëw jàkkaarloog moom tëgg way yeñ tëggal sëriñ Tuubaa dañ da ngay jàngate ci ne ñii daraja ci sëriñ bi am xam nañ ko te ku jàkkaarloog moom di ko ko nangul mhm. tey kii fi nekk di sëñ tubaa tey du doomi sëñ tubaa waaye juróom la sëñ meññi waaye xoolal njàmbaar gi mu taxawee mhm. dafay wax ne cig defaru sax moom Cheikh Mamadou Mountakha nee na nit bu la dabee rëkk la sax nee na gestu gi ngay gestu di ko xool sax nee na fayu nga nee na waroo fayu nit daa war a defaru mhm. nun benn problème la xam nga ci lu ñuy xeexe mhm. ñun ci xaalis la ñuy xeexe mooy sëriñ bi soxla ñu miiras suñ bopp dem joxe xam ci lu ñuy xeexe mooy Cheikhul Khadim ñu defar jumaa yi ñu remplir ko ba mu fees ñun defaruñ ay jumaa ci ay organisation ci ay cotisation déedéet dañ ko defar ci sunu pas-pas ndax sëñ tubaab moo ko ñaanoon yàlla wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim assalawaatil xams da ban yaa hakim damaa dem madinatul munawwara ma ne ñi ma àndal xool leen ku jub barabu yonent bi danga nga mën a xam ndax murit lam déet ku ko jub da ngay fokk sa mbaxana ngir wormaale ko gi bëgg gi sëñ tubaab bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam kooku dafa yar ak njabootam daf noo tëj ci organisation léegi nag li nu mos lañ xamul lu mu doon ndax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sëñ Ibrahima Diop Almasar da ko li nga indi lañ xamul li nga li nga indi sayxun bihi xat unil naa kulla makrimatin xata bihi xabitat na ahlu baydaa wa ahlu misra wa man fil ardi kullihimu akrim bihi min imamin kaasifin daadaa wax na ko ci lu gën a gàtt sax daf ni gërëmal sëñ Tuubaa mën nga koo bëgg ndax ku jubla boroom xam-xam la te imaam la te it mooy dindi jàqare ci bu nit nekkee ci fitna mm. akrim bihi min imamin muhtadin alamin maljal ibadi wa man jaahum min al fitani sëñ Tuubaa li mu indi mu gàtt mu gudd weesuwul si islam yu set wicc ndax nag tristesse weesuwul nga nekk ci réew mi ba muy dem sax xam nga daf ne axraj tumuni mooy deuxième yoon wi naatixiina bi an na ni ndax lan abdul ilahi mm. man jaamub yàlla rek la mm-hmm. waaye bi may dem yóbbaalewu ma kenn koo àndal muy tiirab yàlla bi ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ak i saxaabaam sëñ Tuubaa koo jël seede mun a raqib ak xatiit ñi nga xam ne ñoo nekk ci samay mbagg ñii laay jël seede sëñ Saaliw buñ la jàngalee sëriñ bi ci tënku lu lu gàtt war nga koo mën a ëmbal cofeel ndax résistance mhm. résistance ak révolution nekkuloon révolution wu ñu jël ay pono di taal mbaa ñuy xeexante déedéet mhm. barki dem réew mi yënguwul mhm. genn kàddu Cheikh Mamadou Mountakha moo calmé ñëpp genn kàddoom moo calme ñëpp ñu dal waa kooku léegi moom.